c'est Mamadou Goumbala, membre du parti Réuni, dirigé par le président Idriss Seck. wa monsieur Goumbala bëgg nañu xam sa teewaay tey ci marché sama teewaay c'est teewaayu citoyen yëpp la ndax réew mi am na ay jafe-jafe képp kuy citoyen war nga cee jóg mettitlu ko électricité baa ngi fi ñi ngi téye Guy Marius Sagna et deux ou trois autres camarades d'une ñu pour des faits politiques yu anodins yoo xam ne yi mënoon électricité bangi fi yàqu xaalisu Sénégal bangi fi càcc gangi fi njublan gangi fi les droits des Sénégalais sont confisqués ñi ngi def dialogue national bo xamné fi c'est du dilatoire ndax dialogue bi assise nationale yi defoon na ko Macky Sall pare para parafe ko lepp nga fa dialogue bi côté bi ci intéressant moy benn côté le côté politique bi nga xamné fichier bi lañ ko wara def seetaat nan lañuy défé ak élection qui est le chef de l'opposition seetaat bu ñuy dem élection est-ce que parrainage day am ak yoyu lolu mom le Macky Sall wara def ba mu aboutir la prochaine fois on fait des élections claires yo xamné ne et transparentes yoo xam Macky Sall mënu ci bokk ndax constitution bi moko ko mom ci bopam wax na trois fois né constitution bi moma né ne mënatuma bokk ay élections lolu ma fi tax a teew waaye fi gis naa fi lu ma naqari marche yi ñuy def yëpp amoon naa ci ay doute mais bii mars moo on utilise ces réunions et ces marches pour en faire pour def ko tremplin benn parti politique Ben parti politique ñoo ko bëgg a caporaliser pour ko def ko tremplin parti yep wax na man maa ngi bëgg wax au nom de réew mi ñu ne ma wax parce que réew mi nekkul ci liste bi nangam tentative nag d'isoler Idriss Seck qui se manifeste à pas mal de niveaux c'est voué à l'échec Idriss Seck élection yi am 21 prochaine élection yi bu soobee yàlla dana am plus de 50 pour cent ñu yóbbu ko palais te li ma bëgg a wax waa ñii di organiser nga xam dañuy organiser pour nit ñi la plupart d'entre eux je dis pas tous hein la plupart d'entre eux ku ci nekk parti bi nga nekk xam nañ ko kooku ngay wutal loolu nañ ko bàyyi kooku bu demee deuxième tour mais danañ soxla.

dañuy nawlonte notre seul adversaire et unique adversaire c'est Macky Sall d'autre n'est notre adversaire nañ ko xam mu leer buñ ko xamul nag ils vont droit la tête sur le léegi sorti yi Yérim Seck bi ci émission ci émission face to léegi nee na dafa teg deal ak Idriss Seck. buy teg deal ak Idriss Seck dafay xam dafay yaakaar ne mën naa jox pouvoir bi Idriss Seck. Macky Sall bu mënoon joxe pouvoir bi koy jox wala mu jox ko Alioune Sall wala mu jox Alioune euh, euh, David euh, Abdoulaye Diallo wala mu jox ko parti Idriss Seck Macky Sall du ko déroulé rouge Idriss Seck diko accuser lañ ko accuser Macky Sall le corps diplomatique ak au niveau de King Fat. wax ko ca ñi gën a rey Idriss ñu ko combattre Macky Sall ci la ci la mënu ko combattre dikk ba fii ñu naan day am dil ak moom bu dil dee amee Seck boobu moo am ay dil ak ñeneen ñu koy envoyé muy wax à leur noo te ñemewu ko wax Sénégal nag fii mu ne lu fi waaye nat boo ko nasee minuit wala une heure du matin wala trois heures du matin nit xam nañ ko Idriss Seck fa muy wax ak Macky Sall bu waree wax ak moom ci intérêt général u Sénégal lay wax du wax intérêt personnel wala ay dil te i di sekk du ko fekk keneen du ko fekke Macky li mu nekk PDS yëpp Idriss Seck nekk patron ba quatre ans yi nekk Idriss Seck nekk au gouvernement secrétaire général de la présidence dégg nga booba moo nekkoon patron Macky Sall Idriss Seck du daw ci gannaaw Macky Sall loolu ñëpp xam nañ ko. léegi nooy jàngatee réponse Macky Sall bi bañ ko posé question si discours à la nation bi si troisième mandat bi waxul déet waxul waaw loolu noo a jàngatee waaye yow bu ne waaw ak déet yëpp ñun loolu kippé wuñ